jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi c'est la première fois ñu gis sëriñ buy jël euh, xar ak bëy di ko suul ci suuf mu def ay fanta déewul mbokk yi jëmm ju doy waar mi ngi nii jëmm ju yéeme sëriñ Ifaada Mbàkke xàqatul asraar nee na ma bu fekkee ki nga xamante nii dafa dem ci sëriñ ñu nax ko su ñëwee moon ko ne ñaan yàlla am na combat Zarko ak Ada Fass mbokk yi jëmm ji dana ci wax tey wax ju leer nañ ñi mbokk yi accident yi sëriñ bi tey dana joxe secret bi tax nit ki bu duggee ci oto ñibbiwaat këram ta bant sax du ko xoos donte oto ba da doon béréngu mais laata loolu dañu bàyyi suñu Ifaada Mbàkke mu nuyoog askan wi ñu soog xoos xuus ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay jaare waaw jërëjëf suñ dégg ñu ngi lay ziare bu baax di ziare euh, mbooleem koo xam ne mi ngi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel waaye di ziare it madun mi nga xam ne moom nga àndal ak mbooleem koo xam ne mi ngi ñuy seetaan ñëpp bàyyiwuñ kenn mayiwuñ ñenn jërë ngeen jëf sëñ Ifada euh, tey duma ñëw ci xar yi ak bëy yi nga xamante da danga koy suul ci suuf te yor ay bakkan mu def ay far nga sulli ko te duñu faatu dinaa la ci laaj mais balaa boobu sëñ bi damay gis sëriñ boo dékk micro rek mu ne ramli ramli laay seetee ramli laay gisee mais ramli dafa yomb wala ramli lan moo xew ba ku jóge rek ne ramli. dëgg la sëñ si ramli lañ jël def ko seen doomi bàjjan. waaw ñi ci ëpp ci sëriñ si nag sama kàddu ga ma doon wax rek moom laay wax mooy dañoo jël xam-xam di ko foyee. Mm-hmm. dégg li ma lay wax déglu lii ma lay wax. dama ne Sénégal buñ fi tëggoon làmbi xam-xam. te jël fànn yi ma lay wax. fiq tawxiid suuf mm-hmm. ak mboolem xeeti xam-xam yi. Mm-hmm. ba noppi ñëw ci xam-xamu lasraar. Mm-hmm. garab ak fas. ak wàllu bind. buñ fi woote woon làmbi xam-xam fii bu ma mënta farak sama bopp du ma wàlle. di wax ne nag ramli. xam-xam la boo xam ne yónnente yàlla Idrissa la ko yàlla suñ borom joxoon. mu doon xam-xam bu wér doon loo xam ne ñii dañ koy defee ci xam-xamu suuf waaye dem naaj ba moderne ba nga xam ne léegi dañ koy def sax ci ay kayit waaye nag doon xam-xam boo xam ne nit ki dana ci mën a jaar xam-xam boobu dégg yàlla suñu borom jox na ma jox goo xam ne képp ku seetal ci wàllu seet mooy suuf si ma jàkkaar lool ak bay jën bii suuf si nga gis nii bay jën bii laa koy tombee képp koo xam ne ramlil ramlil naa la ci. danaa la wax ba wax la ban bis ngay faatu ak ban bis nga judd sa wiru àddina yëpp. moom nag lu efficace efficace moom mooy ramli waaye ramli ci suuf lañ koy defee lu ñu tomb lay doon. waay nekk ci àddina buñ la listixaaree daan la wax ba wax la ban bis ngay faatu. ramli est-ce que gaaw na ci génne sarax seet bi nga xamante moo lay wax ne la lii mooy sa sarax. man dégg yàgg naa wax ne duma seet. seet dafa bëri ay tappale. waaye ramli. man moom laay seetee dafa doon loo xam ne yàlla suñu borom moo ko joxoon. yónnanteem bii muy wax Idrissa képp koo xam ne dama la cee ramlil danaa la wax ba wax la sa sarax même bu sa àddina war a jaar dañ la koy génneel loolu nag ba tey bokkul ak li sa xaar yii nga xam ne ñun daan nañ ko def. kon dañ naan Sénégal gii ñu nekk bàyyuma kenn nag bàyyuma ñenn yéen ñëpp laay wax. seet ak li sa xaar yàlla suñu borom sama loxo la ko teg ñu ci des ñëpp dañu làmbatu. sëriñ Ifada Mbacke xaqatul asrar sëriñ Ifada euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy wàllum sampu euh, ndax sampu nit. laaj na yenn euh, matuwaay parce que des fois tamit ñooy diw dañ koo sampoon exemple sept ans juróom-ñaari aadee jeex ay mbiram raaf ñu ne diw dañ koo samp giir dundam sëñ Faara dégg naa ko garaaw nga ku doy waar nga ci wàllum samp tey bëggoon naa xam lan ngay sampee. waaw man nag dégg li may wax addina yëpp di ma seetaan muy man samp ci bëy laa koy liggéey wala nag. te bu fekkee samp bi nga xam ne dafay ànd nit ki tout le temps ba xam ne kenn du ko mën a rikki xam nga rikki mm-hmm. mooy doomu aadama bi nga def ci moom dara ba pare mm-hmm. beneen doomu moroom morom doomu am ñëw dindi loola yàq ko kon samp bi ci béyu weex taar lañ koy def béy wi dañ koy suul fukki fan ak ñeent buñ noppee béy jën bi la ñuy jël ak secret bi ñu koy liggéeyee moo nekk nii mm-hmm. waaye nag téere lay doon boo xam ne dañ koy jàllawle képp ku ko am dama naan la sa famille yaa ciy sut boo sutul sa sa famille lu bon am nag ma ko tuddee wàllu wërsëg wàllu yëkkati ko wàllu am xaalis wàllu nag li gën a doy waar mooy mbooloo mu am njariñ la lay jox mooy ñoo xam dañ lay jariñ kii moom lay def te ku la laal faatu moom samp bii ku ma samp ku ko sempi faatu bawuma ci kenn bawuma kii liggéey lu weex bawuma kii liggéey lu ñuul ñëpp laa wax ndax sëñ Ifaada am na geneen jot du toog jàkkaarloog askan wi di leen wax lu dul dëgg dégg sama xam-xam wuute na ak xam-xam yii ngay gis dégg man maay borom suul ak sulli dégg ba nga dalee dox ba léegi musoo gis mbindeef bu jël luy dund ba ci nit yow mii boo nangoo ma suul la booy nangu ma lay suul kon nag li may wax mooy dama lay wax rek sama capacité bi ma yàlla suñ borom may ndax yàlla suñ borom moo wax ne wallaahu yaxtassu bi rahmatihi man yasaaw man yàlla suñ borom maa maye sama jàmm lu ko soob kon ci wàll sampo lu ma ciy defal nit ak foo mën a nekk ci àddina mën naa laa samp lii boo ko jotee say boo nga tëdd naa la lii mooy toog muy dox dégg. toog muy dox lii lii la képp ku ko jor foo mën a nekk doo sonn ci liggéey lu nit di am ci kaw suuf bu ko yàlla suñu borom dogalee da nga ko am incha allah. sëñ Ifada Mbacke xaqiqatul asrar numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di ko jot sëñ bi euh, ñu ñëw ci wàllum sangat yi nag sangat euh, fii gis naa fi xeetu ne façon butéel yu nekk mais ñaq bi lële lan la. loolu damay jugal sama bopp ñu dem. siwo bi mel na lu xaw a euh, orange. dégg gis nga bii li ma ci liggéey ci wàll mboolem koo xam ne ak luñ la liggéey ak ba. ak lu liggéey ba metti metti moom mi incha allahu taala ab kaas bu ñu la ko tànqalee ak foo mën a nekk boo ko sangoo lépp lu nekkoon ci yow dañ. ndax lii 3 millions wa in yakaadu alladina kafaru la li yaslixuunaka bi ab absaarihim lamma samiu dikra wa yaquluuna innahu la majnuunun wa ma huwa illaa dikrun lil aalamiina fu mu fekk njabar ak mbooleem lu mu doon da koy toj ba mu set. 3 millions wa in yakaadu moom moo ci nekk. te nag doonul ay xaatim xaatim maa ko dàq ci yàlla bind mhm. lii yax piir la yax lañ bind moo nekk nii moom mooy sangat gi waaw bi ci topp bii muy lu doy waar wax lu doy waar mhm. mooy waaqia waaqia moom finance la waaqia ci alal lay dox mhm. moom mooy sangat gi moomit moo nekk nii biteel bii mi ngi doon six cent mille waaqia moom la yoo xam ne yax la gis nga amul maslaa yii yi may liggéey yëpp duma ci wax dara waaye bii ak ñaari mbokkam yii dama ciy wax sangat gii billaahi la si laa ilaha illa huwa loo neex neex làmmin biteel bii nii ku ma joxul six cent mille duma ma la ko jox sëñ bi li nga ci laaj seer na de xam nga ñaat laaj fay dégg ay million laay fay ci bind ay million man bokk maag sëriñ si nga xam ne dañuy wax lu dul dëgg mhm. te nii nii suba dama war a yónnee bawal xaalis bi weex tar te dama ko indi nga ñëw gis gis nga dégg lii may gis nii lii lu doon lii trois millions yi manqué wul benn dërëm la lii nii insha allahu taala dama koy def ci mbind la jëm man bokkuma ak nga xam ne gis nga garab yi nga fiy gis mhm. ak soo yi laay jël financé ko mhm. moom laay jël financé ko mhm. moo tax dama naan ku amul dara jërul nga may xaalis muñal wala nga ñëw ñu tànkal la ci njafaani njafaan yi nga xam ne moo nekk ci euh, booy doog a kon loolu mooy li nga xam ne moom laay wax biteel bii nii ku ma joxul deux cent cinquante mille jërul nga ma koy laaj bii nag cent mille franc laa koy dimbale jaami waaye boo ko tàngoo boo ko sangoo danga nga tàqali ko ak ñàkk kon man samay wax day leer bu fekkee barigo bii nag 17 million yaa waduudu moom moo ci nekk moom ko sangoo bayra dootoo ko ñàkk si àddina même boo doon def saa soo xëyee askan wi it moom waxuma loo ñàkk waaye bayra du ci bokk. bii nag bu fekkee nit ki dafa bëgg jëkkër. wala mu bëgg jabar. kii moo ci aay. ak fas gu ndaw la àndal. boo ko sangoo doo am 15 jours am am soxna. bu dee jigéen nga am jabar boo ko amul waxal suñu ifaada li gën a bon ci àddina bi yow laa ko tuddee. Ah, bitéel yële tamit ay bitéelu ndaw la day yële. dégg damay wax ne. Sénégal bu ñu fi tëggoon làmbi xam-xam. bu ma mënta farak sans bopp du ma wàllee. Mhm. dégg damaa génn ci réew yi. wut xam-xam. xam-xamu sunguf. xam-xamu reen. mboolem fànn xam-xam yi dama cee dama cee sonn dégg. man bokkuma ak ñii nga xam ne dañuy nax askan wi man bu ma demee ba nax nar a am ma dem toog ndax sëtu sëñ Touba laa di sëtu sëñ Mor Diarra bu ma toogee damay tedd. tëdd muy dox. jaaxaan muy dox di nalaw muy dox loolu sëñ Touba ak sëñ Mor Diarra képp la ko yàlla defal. ak sax muy dox waaw capp muy dox. kon damaa xam ne lii damaa bëgg ñëw pour dimbale ci askan wi loolu na leer nit ñi damaa ñëw pour dimbale ci askan wi garab yii nga séen yëpp damaa déplacé réew ak réew pour wut ko mais sëñ bi euh, da dem toog ñu dugg ci sunguf si andi ci ay euh, leeral ndax sunguf tamit nekk na loo xam ne damay dégg ñu naan sunguf dara gënu koo gaaw bu fekkee léegi-léegi nga bëgg sunguf moom moo ci gën a euh, gaaw waaw dëgg la dugg nga lu ma sawar a wax gis nga dégg li may wax nit ñi bàyyi wuñ ko xel li may wax nit ñi bàyyi wuñ ko xel. dama ne leen sëriñ. ak këriñ. dañoo nuroota duñu benn. dootuma dolli goo dégg mag di ko wax nag bu ma dundoon ba génn ca lay àndal man du ma comédien du ma kat damaa ñëw ngir dimbale askan wi waaye nag ngir dimbale sama bopp loolu dafay leer bokkuma ñi nga xam dañuy toog di jooy naan moodu moodu yi laay dimbale moodu moodu déedéet damay dimbale ñëpp bàyyiwuma kenn di dimbale sama bopp. Mhm. kon si wàllu sunguf yi nga ñëw dana ci leeral lu ama ama ama am solo. Mhm. sunguf si nga dégg. nga gis ni bii. bii mbooleem lu nekk ci yow. lii ñaar fukki garab la ak benn. ñaar ak benn yoo xam ne lépp garab yu am dëgg la. Mhm. lii képp ko sangoo lu mu fekk ci yaw da koy dindi te dina la def aar goo xam ne ku dul yàlla suñu boroom du man ci yow dara. muy bii. day leer. bu fekkee bii nag. bii moom mooy njafaan gi bi moo waral coow li. la nekk nii. waaw bii dégg. 114 mm. tobb la. xaw ma ndax xam nga tobb. mais leeral ñu lan mooy tobb. tobb mooy garab goo xam ne dafa ñëw sax ci kaw garab te garab ga laalul suuf. Mm-hmm. moom mooy gi mm-hmm. waaye nag moom mii lu nit lu wax neex neex neex duñ ko jox nit te joxuñ ko garab gi mm-hmm. ndax nit ki nga xam ne dafa taq boo ko joxee garab gi du ko jariñoo. kon nag garab gi dañ ne bu nit ki jëfandikoo lii ba pare ñu jox ko ko ab comb képp mën naa taal nit ki mu tàqale ko ak ñàkk. lii képp ku ko jëfandikoo tàqali ko ñàkk ba abadan man dégg sama wax day leer. Serigne Ifada Mbacke xaqatul asrar damaa wuute ak ñii nga xam ne. ñoom ñooy génn. du ci nawle kenn. Ah. aw ma ci nawle. Serigne sii di génn bawuma kenn. ku jàpp ne ci yow laa yow dama la ciy génn ci yow laa tàmbalee aw ma nawle. la yàlla suñ borom waxoon baat boobu laa jël utiliser ko seen kaw mooy qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad waaye benn kàddu laaj soxla mooy walam yokku lahu kufuwan ahad awma ci nawle ci yéen na leer hmm. jot li ma sunguf si dégg ma leer la ci lu doy waar lii biir lan la lii nag mooy cent quatorze tobb yu fofton hmm. ak yu déem hmm. ak yii nga xam ne moom la ñuy wax olom gii dégg këfuma ci réew ma ci comp bu ndaw trois cent mille laa koy jaaye comp bu ndaw 300000 laa ko jaay am na ci yoo xam ne du ma am complexe pour wax li muy jar. bii ci la bokk. waaye nag comme sangat yee ma waxoon ñoom bii la ñu àndal bii mooy pot bii pot bii nii. bii nii. moom mooy seen ki nga xam ne jotewul pour lee mën naa jël lii. lii bu ko nit amee bu koy sangoo balaa xaaj mu nekk millionnaire. mu nekk millionnaire force ndax xamul tax ma ne force. xam nga bu ma ne woon force ëw ma fu ma ko teg subaa mën nga wax ne kii day bokkaale yàlla. dama koy raxas ba mu set ba mbooleem luy gàllankoor ma dindi ko ci moom subaa bu koy jëfandikoo di am alal. Ah, millionnaire laa la wax boo doon millionnaire. lépp lu bon loo gis tuddee ma ko. man dégg sama wax day leer. sëñ Ifada Mbakke ak xetul asrar numéro yaa ngi noonu affiché képp ki ko ci woo rek di nga ko jot sëñ dugg ci bouteille bi dégg naa nag bouteille bu garaaw nga yor te bouteille bu waar nga yor butéel bi lu muy faj. butéel bi ñetti jàngoro lay boole. ki nga xam ne dafa dem ba amul yaakaar ci boppam. ci wàll tële. ci wàll doonatul góor. wala ngóoram wàññi ko. butéel bii moom moo koy faj. waaye nag fajul lool rek yam ci. dafa ki nga xam ne dafa am hémorroïde moo xam bu nëbbu wala bu feeñ daf koy faj. ak ki nga xam ne it dafa am ay tawat yu seytaane yu nekk ci biir daf koy faj ndax dégg naa la wax na ñu baree bari xamul la moo leen sonal li la nopp ñëw imposé la boppam te soo koo gis mu lay tëddee te doo ko bañ te saa soo xëyee nga yor soob ndox dem sangu ji sa xol di bon doo ci man dara koo koy kan faru rab wala ndawas rab biteel bii fu ko fekk da koy toroxal man sama wax day leer bu ma nammee toog dem ba génn bay jaay sama image di wax dara lu dul dëgg fi ma bokk yàlla naa fi gën a yées kon nag man sama wax dafay leer ndax man xam-xam rek moo ma ñor dama cee sonn nag dégg damaa sonn ci xam-xam damaa sonn ci xam-xam mhm. man ñëw ma fi ngir teg ay stratégie ak di daanu daanul déedéet lépp lu ma wax dëgg la kon lu leer lu leer rek laa euh, tey jaaro tamit bëgg naañ dugg ci parce que coowal jaaro tamit euh, yaakaar naa euh, amoon na fi ay temps mais jaaro pour nga gis ci bu wér tamit lu jafe la mais dégg naa yor nga ci ay jaaro yu yéeme dégg baa jaaro yi demul sama jinnay taal démb un million bi de man nañoo taal leneen sëñ ah, démb de un million CFA bu tàkk un million ci def ah loolu assurance du ci def dara loolu sama mbir la jaaro yi dégg fii la newoon léegi sëñ bi lan nga ñuy leeral ci jaaro yi dégg ah. dama ne Sénégal ba daj waxuma Sénégal de Afrique ba daj wàll jaaro maa ci man foo ko teg fu ma ko teg mooy def fi lu fi kenn deful. Mm-hmm. maa fi suul ganaar muy dund. suul fi naat muy dund. suul fi bëy muy dund suul fi xar muy dund. Mm-hmm. kon nag ku mënul loolu lii may def mënoo ko. Mm-hmm. jaaro bii ni dégg bii. ku ko takk da nga takkali ko ak ñàkk. ba faaw. waaye nag bii nii xoolal bii bu ndaw bii mooy bii xoolal man lu may wane lu may jox nit ki dama koy takk bii ngay gis ni bii bii ku ko takk ku la liggéey dee sa famille yaa ciy sut képp koo xam ne dafa jiim ci yow dara wala ngeen bokk entreprise wala dara insha allahu taxalaa bu xeexee ci yow day torox mooy jaaro bii sama wax dégg day leer jaaro bii nag yaa ngi dégg léeg-léegi sëriñ si bari naan xaati mu sarif jaaro bii dégg képp koo xam ne. Mhm. am na ko bii bii xam ne moo am xaatimu sarif bii. Mhm. danga nga ko ak ñàkk da ngay ubbiku bu la neexee ngay tëdd. Mhm. bu la neexee nga toog ne man sëñ Ifa dama wax bul xëy da ngay toog muy dox. toog muy dox laa lay defal kon man dégg samay wax day leer. sama wax day leer man bokkuma maa ñii nga xam dañuy tappale ak ñii di comédien déedéet du ma genre boobu dégg. Serigne Ifada Mbacke xaqatul asrar numéro yaa ngi noonu affiché. ñu ñëw ci ndomba tamit suñu ifaara tamit gis naa ne ku bari looy liggéey ci wàllum ndomba euh, lool nga. waaw ndomba nag li ma ci yàlla may man li ma yàlla may moo moom la mayut ñu bari te dama bëgg ñëpp xam loolu. dégg yàgg yàgg damay bàyyi ñaan gi. bu ci kanamee tuuti bu at yi gënee bari dangay bàyyi lii ndax doo amati jot gi. ndomba gi mooy ndombak caw sa xiir caw sa xiir. daan wax lii. caw sa xiir a ngi nii de. ñaar fukki gaaw la ak benn. takk tekki takk të takk tekki takk të. takk tekki takk mooy képp ku ko takk. Uh-huh. ringir ci àddina moom xaw ma ko ko defaa yow bokkoo ci. waaye nag të. ku la liggéey dee. Hmm. sa famille ciy sut. baatu gannaaw sax doo ko am xam am na ñoo xam dañuy wane gannaaw ba pare. ñu leen di jëw. ku la jëw ngal la boppam di métti. man sama wax day jeex. foofu laa yem ci ndomba yi ci des ci laa koy bàyyi. loolu la bu ko takkoon seen ngaal dañuy métti parce que dañuy jëw rek mais sëñ bi. Hmm, Ada Fass Zarko làmb la joo xamante ni tey lan ngay teg ci loxo askan wi ñu xam combat bi ana nan nga jàpp ne noonu la mbir yi di demee. waa lii ma ci wax daal benn sarax rek laa ciy wax. ñoom ñaar ku ko ci def. incha allahu taala dana daan morom ci ndax bul fàtt ni ñoom ñaar ñëpp kenn néew ci doole. kenn néewu ci doole. Mm-hmm. képp koo xam ne lii ma lay wax maa leen ko may ngir jëmmi yàlla maa leen ko may ku ko ci def dana daan képp ku jël nag wu ñuul kuk tër ko rend ko def ko fukki sam ak ñeent wax yaa wahaabu saabu mu ne yaa wahaabu nga koy joxe nit jël der bi julli ci ñaari ràkk ñaan yàlla suñ borom force yaay daan deru nag julli nag wu ñuul lu lew lu dagan la boo rendee nag wa ci yoon uh-huh. insha allahu taala boo ca jullee ñaari ràkk yaay daan man damay maye man dóoru bokkuma ñi nga xam ne dañuy wax ci ngalaw li mbër mu ko def yaay daan boo ko daanoo man fan laa dëkk Kër Massar. nga fekk ma Kër Massar. ah dëgg la Kër dëkk. sama wax day leer dégg. Ah. ku ko ci def da ngay daan insha allahu taala. Eh, sëñ Ifada Mbacké xaqatu asrar looy tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. xanaa di leen ñaax. di ñaan yàlla suñu borom def si réew mi jàmm. Mm. waaye nag di masawu ñi nga xam ne seen njaboot jóge nañ fi. te sax ñu ngi tuub day jéggalu ndax loola mooy li nga xam ne lu ñu waroon a débuté la waaye nag àll beeg tappale rek moom moo ñu naqari woon ak comédie gi nga xam ne nekk na ci ci géewu lasraar ngir jëmmi yàlla maa ngi ñaan mboolem sëriñ boo xam ne yaa ngi ne sëriñ nga te yëngu ci ñaan respecteel ñi nga xam ne ñoom ñoo lay siifur waaye respecteel sa bopp respecté ko sa bopp dégg mooy lan mooy nga dem jàngi alxuraan ab sëriñ lu mu gàtt gàtt bu munta mokk alxuraan war na koo war na koo miin wala boo ko miinut it war ngaa fexe loo soxla nga génn ko nga dem jàngi xam-xam ba yeewu sëriñ su bari boo leen tariloo woon ne leen sifaatul baat sëriñ su bari xamuñ ko sifaatul waajibaat ak sifaatul mustahilaat buñ ko xamee ba pare ba xam mboolem lu aju ñu dem jàngi lasraar waaye sëriñ su bari boo leen woowoon dégg yow mii boo jekk jëm woo ab ne kaa ñu daal laak suñu ifaada mbàkk ngeen waxtaan ci xam-xam yëpp day lànk si ifaada fa bi ay alaati rabbu kamaatu kasiba fa fa bi ay xam man nag la yàlla may mu mën a wax ci alxuraan loo xam ne kenn du ko dindi maa mën a tari arrahman ba mu jeex te du dugal fa bi ay alaati rabbu kamaatu kasibaan ah. fa bi ayi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan xalaqal insaana min salsaalin kal faqaar wa xalaqal jaanna min maarijin min naar rabbul mashriqayni wa rabbul maxrijayni marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzaxun laa yabqiyaani yuxriju minhumaa lu'lu'u wal marjaan wa lahul jawaaril munsaatu fil bahri kal a'laam dégg ba Alxuraan jotee dama ko jàng ba mokk baat bu ma neex mën naa ko sib. alif laam mim nun salikal kitaab. laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin alladiina yu'minuuna bil ghaybi wa yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladiina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa humul aaxiratuhum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun dégg mhm. bul fàtt ne jàngalekat xam-xam laa jàngalekat yow mi yaa min alxuraan dama ko mokkal yow daara ji ca njaarim ma yor daara ji ca njaarim mhm. doon majalis ba jàngee sëñ Abdourahmane Mbàkke yal na ko suñ borom dolli yërmande njëggal jànge yi daara sëñ Mor Mbay Siise ba tari alxuraan sëñ Mor Mbay Siise balaa mokkalee dama ne lii ma ñeme ci alxuraan amul benn benn benn benn benn asraarkat bu ko ñemee. concours concours bu amoon ca luumam nebe ba ñi concours alxuraan ay mag taxaw dégg naa nga nekk lu ndaw ca jamono joojee ñëw gañ ko ñibbaat loolu nag à l'époque la woon boobu dégg naa ay site gii nii amul woon waaye bu amoon jamono ji dañ koy filmer yéem ko mais coow loo xamante ni lëmbe woon na tund bawol ak li ko wër. man nag dégg yàlla suñu borom daf ma yàgg dimbale moom teel a man alxuraan. xam nga mas naa dem ci benn mbooloo xam nga lañ doon wax mm. nag képp ku wutal fa bi ay ala rabbikumaa kasbaan mm. ñu jox la dix mille boobu dix mille alal la ci man ma ñëw taxaw ni leen xala mm-hmm. xalaxal linsaan min salsaalin kal faqaar wa xal jaana maar ji mën naar ñu ne ma lan man leen ni baa sikkatumaa kubita ilaa ay fa essant bi ay ala rabbikumaa kasbaan laa juutal ni baa ah? sikkutumaa ku bi ra i la ay abi fa maa kubita yow mi yaa xam alxuraan nga ne sëñ bi damaa mokkal alxuraan ni baa sikkatumaa ilaa ay abi kon dégg nañ yamale foofu ndax yaa ngi yëngal sama aal ah? yaa ngi yëngal sama aal dégg damaa mokkal arxuwaana xam-xam ak xasida di sëtu Serigne Mor Jaara mu bokk ak Serigne Touba nday ak baay mhm. dégg bu ma amul xam-xam kan moo war a am xam-xam dégg ku war a jaami kan moo war a dimbale jaami dimbale jaam yee ma war ma dun moo tax maa ngi leen di dimbale kon maa ngi ñaanal képp koo xam ne mi ngi may siifur maa ngi ñaanal jàmm ak tawfiq ak taysiir di xam ne lii kat dimbale askan wi képp moo ñu tax a jog billaahi la si laa ilaha illa huwa te du ñu mas a lekk alal jàmbur ta liñ te liñ ñu sant defaluñ ko mbooleem loo xam ne nit bëgg na ko te ñu man ko mm. daan ci taxaw suñ kémtu lay kàttan mbooleem loo xam ne mënuñ ko bu ñu ko waxee daan ne ah lii kat mënuñ ko mm. ndax yàlla suñ borom kat du maye lépp mm-hmm. yàlla suñu borom moo yeyoo lépp mm-hmm. kon yàlla nañ suñu borom boole dimbale defal ñu feex defal ñu taysir te yéen mu sàmm leen te Médoune yaa dégg maa ngi leen ñaanal seen lii dem ba doon télé waaye maa ngi leen di waxi lenn képp ko ab tappalekat di nëbbatu ba ñëw si yéen bu ñëwee yàlla na fay bu ñëwee yàlla na fay yàlla nañ ko defal émission pare mu fay day fay day fay fii ko tàppale doo feeñ wala boo feeñee bu ñu ko xamee bu ñu la signalé yow da nga génn ñaata sëriñ nga xamoon yoo xamante ni ah, defuk dëngate moo tax nangatuma leen tàllal micro. ngir njariñal askan wi. gis nga ñu baree baree bari dégg. déggatoo leen fenn giim nañ. lan laa la waxoon nee naa la sëriñ si bari dañuy luy yëre bi nga ñëwee ñaata mbagin risque nga fekk. lii léegi léegi laa ko sol sa kanam. man nee naa leen li ma sëñ Touba defal bu ma toogoon rek day dox. beneen bi ci des mooy sëriñ si fii ak maa ngi fi ku fi def lu jaaduwul ci wàllu ñaan du ma xeex na waaye dinaa la fay ba nga ne fay kamaj wala ma fexe la nga def scandale scandale moom maa ci gën a ah. sëñ bàyyi tëj émission bi mbokk yi tey waxtaan wi am na njariñ te waxtaan wi am na solo ñu doon ko séq ak Serigne Ifada Mbacké xaqatul asrar doon ko fekk fii ci daara ju bees ji ci Kër Masar leen fàttali ne jamono jii kon mu ngi féete fii ci Kër saar fii la ëpp lu muy nekk ca Njaareem nee na ma su ma duggaatee Njaareem yaakaar naa gàmmu ga rek laay delluwaat Njaareem waaye maa ngi fii ci sama sanc bu eh, bees bi ci Kër Masar boo duggee ci suuf pont bi rek ah, côté ah, pharmacie 24 heures mbokki numéro yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jay Muhammad